mbokki internet yi dalee nag jàmm Pape Alé Niang journaliste chroniqueur ca Dakar Matin mi nga xamante ni nag daanaka ñëpp xam nañ ko ci ay chronique mi nga xamante ni nag moom lay daal di nag def say su ne moom chaque jour bu génnee daanaka ab révélation lay def jëmale ko ci nguur gi fi nekk ak yenn ci ay njuuj njaaj yoo xam ne ñu ngi koy daal di nag amal moom Pape Alé Niang keroog chronique bi mujj bi sax a mu doon wax ci li nga xam ne moom mooy matériaux yi ñu jëndoon nag ngir lépp loo xamante ni moo ñeel nag xeexu mu mi di covid 19 ñu jëlaat ko daal di koy jëlee ci centre de traitement yóbbu ko ci clinique yi daal leen koy baaxee jaay leen ko moom mi nga xamante ni nag moom mooy Pape Alé Niang daal di xamle woon ci jamono yooyu ne ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne sa bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko njëkk daal di nag soulever ne corona business am na ngir président Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr daal di ci indi nag ay leeral moom Pape Alé Niang waxati démb ci chronique am ne Macky Sall ma ngay waajal ngir tabax benn hangar boo xamante ni toll na ci deux jàpp trois nag avion bu bees bi moom mi nga xamante ni mooy Pape Alé Niang buñ sukkandikoo ci limametti point com mooy ginnaaw avion bi nga xam ne daf ko daal di jëndoon mu nekk un avion de commandement ci A320 neo bu bees bi nga xam ne daf ko jël ci compagnie bi di Airbus Macky Sall daal di waxaat ci defaat leneen nag Macky Sall defati leneen muy cinquante sept milliards yoo xam ne daf ko débourser woon ngir daal di nag def li nga xamante ni moo fi daal di nekkoon nag di Pointe Sarène daanaka dafa daal di nag am ay jafe-jafe ci wàllum technique ay weer kepp daanaka ginnaaw ba mu ko jotee ndax le 16 juillet bi la fay bi waroon na jeex ba mu ko daal di nag mën a jël ba def ci nag voyage bu mujj defoon ko ci réew Mauritanie euh, ñu daal di toll nag daanaka ci ñaari weer képp moom mi nag Macky Sall daal di nag waxati euh, nar a ci beneen polémique boo xamante ni mi ngi ñeel ci tabax benn hangar goo xamante ni a tabaxee euh, boobu leen nag euh, xibaar moom journaliste bi di Pape Alé Niang euh, di journaliste d'investigation moo ko daal di nag xamal hmm. daal di hmm. ne nag li ko waral bokk na ci nag bëgguñu gaare avion bu bees bi ci ancien hangar bi nga xamante ni moo nekkoon ci aéroport ci ab vidéo goo xamante ni nag moom moo ko daal di def ni hangar bi nag daal di nañ koy nag lancé ba noppi marché ba sax ñu xam ne ni nag investigation yi mu ciy def mi ngi wëy moom Pape Alé Niang boobu la construction entreprise euh, moom nag mi ngi koy daal di nag vérifier ngir euh, location bu benn grue boo xam ne toll na ci deux cent tonnes euh, boo xam ne jot nañ ko def bu ñu sukkandikoo ci moom Pape Alé di wax ni itam daal ni structure métallique nga xamante ni moom la ñu duppee Delta Marine Industries moom la ñu daal di jox itam lépp lu jëm ci wàllu métal ci boobulee hangar waaye nag moom Pape Alé Niang ne mi ngi jox dig daje nag très bientôt ñi nga xam ñoo internet ci ngir nag ay leeral ndax moom mi dina ko daal di enquête def ay investigation ba mu leer naa